beneen bi nag fi may ñëw rek mooy ci actualité politique bi comme ni ko sama yeneen naataango yi waxee je pense que man dama bokk PDS laa bokkoon nekkoon fa depuis deux mille ba deux mille vingt deux ma jóge PDS le président Déthié. deux mille ba deux mille vingt deux. oui fa laa bokkoon <coughs> nekkoon naa membre du secrétariat national ma gis le président Déthié qualité yi mu am ak homme d'état bi mu nekk. bi ma ko xamee léegi aussi ci opposition la ma sa nekk. te souvent li may wax ñu naan vaar ci homme politique man gisaguma fenn fu ñu ko mën a vaaree ne moo waxoon lii daf na lele et sëñ Abdoul Ahad suñu maam jooju daraan wax naan. nit bu bi nga ko xamee ba léegi ci opposition la ma sa nekk. ci la ma sa nekk. waaw ah poste bi mu mas a am mooy député mosul nekk ministre mosul nekk directeur général. oui oui mais loolu loolu rek tax ko nekk ci opposition. parce que bi 2012 Idrissa Seck réew mi ñu ngi bokkoon. ci benn bokk yaakaar. no dama ne je répète encore. wàllum ndomb tànk waaw mais parti bi mu. mais même bi Idi nekkee au pouvoir Idi nekkul au pouvoir parce que yi allié la woon nag bu jàppale président Macky Sall. Ah. xaaral ma ñëw. waaw mais est bi ñuy joxe nommé ministre yi waa réew mi est ce que Déthié dafa nekkoon ministre. ah yow ci takk ndomb tànk yi nga. wax ci ndombal tànkam laay wax mosu ko gérer. ok donc mu nekk koo xam ne aussi ko loxoom set la ma xool ko gis ko mu doy ma ma bokk ci moom ànd ak moom ci politique li tax may wax loolu mooy. dafay renvoyer loxoom set na loxoom set na bien sûr. industriel la mu ngi liggéey yor liggéeyu boppam kenn mosu ko dégg dara ci lu taq ci dëkk bi fii muy borom xam-xam aussi di cadre émérite li tax may wax li mooy <clears throat> en 2012 le président Abdoulaye Wade bi opposition bi jógee yuuxu ko ne ko élection yi dafa war a leer andi coow li ne ko Ousmane Ngom moo ko géré woon à l'époque il la grandeur génnee. nommé le euh, suñu euh, le ministre Cheikh Gueye. Mhm. dénk ko élection yi. waaw mu nekkoon pas bu am solo ci wàllu démocratie parce que tamit élection bu bu amee acteurs yi ko bokk dañu war a nawle wante mhm. mais ku koy organiser aussi dafa war a jox cër ñi mu ko seqal. Mhm. te xam na tey Sénégal le président Macky Sall jeexal na dans deux mois ancien président lay dégg. ñi ma ko bokkal seq ak ñoom daf leen war a respecter dans la mesure où charte fondamentale bi régir suñu dëkk muy constitution lépp lu mu wax daf ko war a respecté le président Déthié ci tànk yooyu la nekk te loolu la mos wax ne président Ousmane Sonko dafa war a bokk juridiquement amul dara lu ko teree bokk tey bu ñu demee ba le juge Sabassi Faye il est rentré dans l'histoire fexe delloowaat président Ousmane Sonko ay droit am ñu yóbbu ko cour suprême cour suprême renvoyé ko cour d'appel doyen wax na ko sànq juge yi fi nekk ay xale lañu ñoom seen plan de carrière la ñuy sàmm di wut lu neex nguur wala lu naqari nguur. waa ji moo ko wax waa ji moo ko wax dama ju waaw. ba mu donc dafa war a respecter li nga xamante ne mooy décision de justice te le président Macky Sall bi muy wax mos na wax ci allocution am ne fii ba le 2 avril mu fiy jóge dina def le tout ba décision de justice yi ñu respecté ko moo ko wax les archives sont là. Mm-hmm. et je pense que lii am nii dafa war a bokk ci liy wane ne moom dafa war a fexe wax ne juge yi nañu respecter les décisions de justice. juge administration bi. administration bi. Mhm. mais au moins bu demee ba maître Ciré Clédor li ñëw dem DGE ñu baare ko ni du dugg muy avocat wane kartam lépp li ko yoon may mu def ko ñu ni du dugg ay dafe aussi la même chose. dafa am loo xam ne honorewul démocratie. bu ñu fàttali bu ñu fàttali avant législative bi Bart aussi xataraay woon na buntu DG e. DG e mu ngi bëgg a siiw ah. waaw mais non mu fay bëgg a bëri nag. waaw amee xam nga ba léegi dafa wute xataraay yooyu. mën nañ ko jàppee ci angle politique mais lii décision de justice la. d'accord ñu war ko respecter. kon je pense que su dul dara DGE kenn sant ko l'organisation des élections c'est la CENA qui organise les élections DGE benn service su état la boo xam ne moom dañ ko nekkat kat élection yi procédure bi nii la war a mën a demee candidat yi ku ne da nga war ku bëgg fiche da ko war a jox fiche. kon je pense que bu ñu fi nekkee ba tey di tourner naan président Ousmane ko jox nañ ko fiche joxuñu ko war na jëlam jëlul ba ñu naan ñu bientôt fu mu toll nii dossier mu ngi xaar benn rabat d'arrêt comme ni ñu ko ni ñu ko waxee beneen décision bu war a ñëw ça pose problème tey Sénégal mbokk na li ci ñu wax le président de ci wax na ko ci programme bis bu ko yàlla joxee réew mi confiance bi sénégalais amoon ci justice dafa jeex tey dem na tey ba sénégalais bu dee waree dem ci yoon danaan man de maa ngi mais am yaakaar ne man du fa am dëgg. te amaana sax am na dëgg confiance boobu nag lañ bëgg nit ñi ñu delloo soit ko en tout cas ñun suñu leader le président Déthié ci loolu lay xeex mhm. te bu ko yàlla joxee réew mi mhm. dina fexe ba sénégalais yi wóoluwaat justice mhm. gën a respecter institution yi fi nekk parce que tamit justice dafa nekk dernier rempart boo xam ne ci dëkk su nërmeeloo rek lépp dafay nërmeelu d'accord et je pense que loolu dañ ci war a gën a bàyyi xel pour que au moins sénégalais yi confiance boobu mën a ñëwaat